أيها المستمعون الأوفياء أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soppey am di jàmma yi ñu ngi leen di nuyu fiñ leen daan nuyoo di leen ziyaar di ñaan yàlla yàlla sàmm leen yàlla dolli seen sutura yàlla mi borom sutura yàlla na leen ko yàlla defal di nuyu fadilatu cheikh Thierno Hamidou di nuyu waa xadara bi ñoom ñëpp di leen nuyu di leen ñaanal yàlla euh, di ko ñaanal yàlla ci tawfiix mu dolli ko ko dolli ko sutura euh, ba nga xamante ne mission bi dana gën a jëm kanam incha allah di ko jotal ziyaar mu jotal ñu nuyoo ziyaar ci fadilatu cheikh Thierno Bachir ayyadahu llah wa ataala baqaahu yal na ko yàlla def Euh, di nuyu waa Safina Sadat yëpp di nuyu Sayda Ñuma bu ñu ko nuyoo rek nuyu nañu personnel bi yëpp ci wàllu xabaar yeex ci wàllu information yi ñoom ñëpp rek yal yàlla sàmmal ñu leen euh, ñuy def waxtaan ci kër gi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax bàyyiwuñu kenn yal na yàlla sàmmal ñu leen dolli seen xam-xam bu baax ñu ne ci wàllu xarale gi ñoom ñëpp yal yàlla defal leen sutura. fu ngeen mën a nekk rek yal na yàlla sàmm leen yàlla defal leen ay promotion yu kawe lool incha allah di nuyu suñu wayjur alxaaja Kuma Njaani Sarr di nuyu njaboot yi ñoom ñëpp yal na yàlla defal ko tawfiix moom it yàlla sàmmal ñu ko aaral ñu ko niki noonu Pape Abdallah Abdoulaye Diop Bàjje Ndeymati mon commandant El Hadj Mansour Niang Mama saxaaba soppe yooyu ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax suñu yaay yi Adja Maymuna Diouf mu ngi nuyu eh, ñepp ñu ñu ma mère Diouf ngi leen di nuyu nuyu njabot gi mana personnel bi ñepp mu ngi leen di nuyu neena na mu ngi yek kaddu yi ñaan yëpp mu ngi rafetlu liggéey bi yan yalla sàmmal ñu leen Adja Nogay ñepp ma sha allah Babacar ngi leen di nuyu. di nuyu soppe yi ndongali gay El malik ñom ñepp yal na sàmmal ñu leen maa ngi leen di ñaanal yàlla subhanahu wa ta'ala. yal na yàlla mii borom sutura yal na leen ki yàlla defal soppey ndongali kay El Hadji malik fu ñu mën a nekk rek euh, dëkkandoo yi soxna Raki Adja faatu Fatou Badji ñoom it ñu defal leen ñaan it comme niñ koy defee ñoom it jamono bu ne yàlla sàmmal ñu leen dëkkandoo yi noonu mag ñi nga xamante ne ñu ngi àndax ñun Pape Amadou Sow rajo yokkute Pa Warga Wan macha allah El Hadj Doudou Seck El Hadj Baye Ngala ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax. Euh, di leen ñaanal yàlla yàlla yàggal leen fi defal leen sutura ñoom it seen kàddu yëpp benn la rek mooy ñaanal njaboot gi ñu kenn ndëkk góor ak jigéen mag ak ndaw foo nekk rek ñoom ñu ngi lay bàyyi xel ndax xam nañu ne yéen a ngi leen di bàyyi xel ñoom daal ñu ngi leen di ñaanal sutura di nuyu suñu njabootu bopp njabootu El Hadj Baye Ngala di jël nuyoo di ko jox ko kolle mu jotal ñu ko njaboot gi ñoom ñëpp macha allah fàttewu ñu kenn yal na yàlla sàmmal ñu leen. di nuyu maam isa ñu ngi koy ziar bu baax a baax si ñaan yeex encouragement yi yooyu yëpp macha allah di ko ñaanal yàlla tawfiix di ko ñaanal sutura yal yàlla mi sàmm sàmmal ñu ko bu baax a baax incha allah eh, di nuyu naaji bi mu jësal ñu nuyoo njaboot gi waa eh, waa réanimation ñu leen di nuyu bu baax a baax hôpital Abbas Ndaw noonu hôpital Philippe Magdalene sangor di nuyu maladie ci hôpitaux yëpp yàlla ñu leen wa daayira huda fii ci skat irbam ñoom nday ba aja mbayam nanteeg ñoo ñëpp ñu leen di nuyu waa marsa asalem el sey wa pikin tali mak Ibrahim ibrahima dembali wa yarah kalidu ñoom ñëpp taximaan nyop ñëpp ñu Wa leen di nuyu mamadou sall grand yoff aziz fall yann yàlla sàmmal ñu leen Eh, di nuyu ñoom ñëpp ngoone ngom fële ci yoof di nuyu Marie ñu lay ziar nga jësal ñu nuyu Ayta macha allah yal na yàlla defal leen tawfiix libaas Pamor ngeen jësal ñu nuyu soppe yi nekk foofu yëpp ci yoof ah lu ko wër yal yàlla dolli seen sutura kon nag mbokk yi yéen a ngi seen émission xam sa diine ci 98 point 2 fii ci Scat Urbam eh, di ñëw ci li nga xamante ne mooy weer wi ñu nekk comme ni ñu koy jundee jamono bi paase di leen ñaanal yàlla tawfiix weer la woo xamante ne weer wu yàlla barkeel la weer la woo xamante ne nii bari na ay ngëneel noonu fàttewuñu Oustaz Moussa Baldé dañu koy nuyu bu baax a baax a baax kon ginnaaw sant yàlla subhaanahu wa taala nañu ñaan yàlla suñu mujjug adduna yëpp mu fekk ñu ci lu neex borom bi buy jël suñuy ruux ñu nekk ay julit la mu ko waxe moom borom bi ya yaa ayuha alladina aamanu ittaqullah xaqa tuhaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun loolu yàlla na ko yàlla defal saxal ñu ci góorgóor lu baax xam ne ñun ñëpp ay mbokk lañ benn bakken lañu mbokkoo gi ñu rafetal ko yéwénal ko lu ñu man ñu taxawe ko ni ko suñu borom waxee ci suuratu nisaa yi góorgóorlu bu baax ci suuxat ko ku ci bokkax nit nang ko taxaw nang ko dimbali nañuy bàyyinte xel nañuy yërëmante nañuy am ñewante suñu biir yoy yëpp suñu borom bo demé ci ahzab suratul ahzab lu mel non mu ko fay wax ci ya ayuha allazina amanu taqullaha wa qulu xawlan sadida yu ju bax jo xamantene li mak ñi di wax rek kàddu gu rafet sarax la mom la yonent bi waxon ne alkalimatu at tayyiba sadaqatun kon nak mbokk yi weer wi ñu nekk di weeru sha'ban di baraxlu lu ñu war ci farlu mbokk yi ci weer wi le laaj bobu nga laaj sa bop bokk na ci yi tax nañu war ci mën góorgóorlu bu baax ndax da nga am gan gu mag gu ñew ta gan googu la di ñew war nga ko wajal war nga ko teeru ñun ñëpp ku ci am gan gu lay seet si rek di nga fëggaat di nga bale di nga parfumé di nga di di nga yëpp bu dee ko sant Sàmba la wala Siise wala Kebe wala wala nga am loo ko préparé pour bu ñëwee kon gan gi ngay waajal moo waral loolu kon mbokk yi ku ne ci ñun am nga gan te gan gi mooy weeru koor gan googu la di weeru koor yii war nañ ko ko mën a waajale bu baax teeroo ko ko xam nañ ne weeru koor ay waxtoom moo gën ci waxtu yëpp xam nañ ne ci jamono boobu yàlla dana ci def ay xéewal di ko dotti ci umma sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon moom yonente bi saa sallam muy wax na ifalul xayra waaw def leen lu baax dee leen def lu baax bu leen ko bàyyi mukk fu ngeen mën a nekk ci weer yi na ngeen def lu baax rawatina ci weer le boo demee ci tabaraan yi ñoom dañuy wax lu mel noonu ne inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahat فتعرضوا لها لعل احدكم ان يصيبه منها نفحه لا يشقى بعدها ابدا يويب yonent bi sallallahu alayhi wa daf ñu koy wax ngir di ñu bàyyiloo xel gan gu màgg gi di ñëw te ci weer wii di baraxlu la ñu koy waajale mbokk yi weer wii moom la yonent bi waxoon ne mooy weeru ki nga xamante ne mooy sang bi gën muy sallallahu alayhi wa sallam comme mu ne sama weer la nag weer woowu moo taxoon suñu yaay Aïcha ne daana ko woor danañ ci ñëw léegi mu ne dama bëgg bu ñu yéegi jëf yi sama jëf bokk ci man sallallahu alayhi wa sallam te la ma ca gënal mooy mu fekk ma ma woor mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ci xadis yooyu le de yàlla mu ngi dotti ay mayam ci weeru koor ci umma seydina muhammad ci weeru koor ci ngay fekk yàlla di ubbi ay xéewalam yërmandeem ci ngay fekk ci weeru koor leeru alquran ci ngay fekk ci weeru koor li nga xamante ne mooy barke alquran ci ngay fekk mooy ngëneelu alquran fekk mooy may alquran mbokk yi si weeru koor woowu si ngay fekk it aljana si xetam yu neex yi yàlla di ko wesaare ci àdduna bi mu ne bu boobaa moo taxoon mu ne weer woowu day waxuma la dara waaye at yabu allahi min rihil misk la fa la xaluufu fammu saaim atyabu inda allahi min rihil misk kon mbokk yi loolu rek tax na ñu war ko mën a bàyyi xel ci weer woowu ci la làmmiñ yëpp maanaa di defaroo wax lu yiw foo dem wax yu rek nga fay fek waaw wax yu rek kenn du wax safaan wer la bo xamantene yàlla dana ci wàcce ay yermandem ci mbindeef yeb mom wer la bo xamantene wer wu yàlla barkel la weeru màng ay yiw la comme ni ñi waxé ne weeru promotion la wér la woo xam lo ci def suñu borom bi daf koy ful ay fuli ful ba sax fanen mu ne assawmu lii wa ana ajzi bihi maa ko moom te maa koy fayal sama bopp lu tax mu ne nit ki bàyyi na léppam ngir man kon man yàlla maa koy fayal sama bopp mbokk yi déglu Safina FM 98 point 2 ñu ngi ci waajtaayu weeru koor ci weer wii di baraxlu ndax weer la wax ne moom weeru koor ci la alquranul karim wàcci ci wàcceem yépp nag baytul izza yu yep ba naka yàlla di wacce ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam événement par événement kon wàcceem gu njëkk ke yep inna anzalnahu fi laylatil qadr kon nag wer la wo xamantene weru njub le weru dakh ak réer sànkute tegu si siraatul mustaqim mbokk yi weer la woo xamante ne képp ku ko woor te yàlla rek tax yàlla jéggal la sa mbooleem xeeti bàkkaar mbokk yi weer la woo xamante ku ko taxawee oor ko taxawe ko taxawe ci naafila yi naafila moo xam ay ràkk la naafila ci saraxe naafila si seeti ay mbokk ci dimbalinte ci am yërmande ci man qaamahu imaanan waxtisaaba gufira lahu ma taqaddama min zanbihi mu bañ a ci kuy jóg guddi rek di naafila waaye mboolem xeeti coobarewu rek nga taxawe ko ngir màggal weer wi waaye lan ko defe yëpp lan ko defe yëpp lenn rek la mooy li wajhi llahi subhanahu wa taala yàlla rek moo tax nga koy def mbokk yi ci gan googu ngay teeru fihi laylatun xayrun min alfi shahrin comme ni ko alquran waxe weer wu gën junney weer mu ne loolu ci weeru koor lay amee kon nag nañu ko waajal bu baax weer la xamante ne buntu aljana yi danañ ko ubbi ubbil ko ñan ñi nga xamante ne maanaam ñu ngi def lu baax boo déggee loolu la muy tegtal mooy yàlla yombalal na doomu aadama yi jàppandal na ci ñoom bunti def lu baax bunti def lu baax yàlla jàppandal na ko ci ñoom yàlla yéwénal na ko ci ñoom ba nga xamante ne def lu baax dana leen yomb lool ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñi ngi def ci weer wi lu baax lu mu mën a doon yàlla yombalal na leen buntu def yi baax yi moo tax mu ne tuftaxu fiihi abwaabul janna waaye tamit bunti safara ñu tëj ko lool kene lépp loo xam ne sofaan ba yàlla dana la dimbali ba sa xel sax du ci ne dana la soreyal loolu yëpp yiw rek ngay xelaat kooku weer la woo xam ne mbokk yi jar na waajal jox ci nit mu dog gis nga ni mu ama solo weeru koor dafa mel ni umma bi yëpp nga jox lu ñu doge kon nag mbokk yi déglu Safina FM point 2 fa man araada an yafuuza bi jawaa'iz ramadan falyasta'id laha min al ku bëgg a texe bëgg am ci mayi weeru koor yi ku bëgg ci teraanga yi ku bëgg ci xéewal yi kon nag mbokk yi waxtu wi jot na ngir waajal gan googule ndax loolu doo ko mën a am mukk lu dul da waajal sa bopp da gis ne comme ni ko waxee rek kuy séentu sa gan da koy waajal noonu tamit doo xaar ba weeru koor wi ñëw rek nga sóobu ci noonu waajtaay la laaj ndax weer weeni toll moo tax si xadis boo xamante ne termisi génn na ko dañu laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ayu sawmi afdalu bada ramadan qaala chaaban li taazimi ramadan mu ne ah la sa gën day mooy chaaban ngir màggal ngir waajal li nga xamante ne weeru koor donte la xadis ba am nañu wax daif la waaye kat ñu bari rafetlu nañ ko ndax maanaa bi lu wér la kon nag mbokk yi déglu Safina FM 98.2 farata boo ko gisee farata naafile daf koy jiitu naafile tëj ko boo doon julli tisbaar nga def ñaari rak jëkk tisbaar boo xam ñeente la soo jullee sa farata ba noppi defaat ñaar walla ñeent mu ne naafila noonu lay mel yi ngay def lu jiitu ngir waajal farata bi la ñaar rakk yi ngay def jëkk tisbaar kooku waajal li nga xamante ne mooy tisbaar gi la ñaar yang say toftal bu dee ñaar la ginnaawam ngir lépp loo xamante ne wàññeef la lu matul la loola man ko remplacer kon nag loolu moo waral sunnal qabliya ak yi nga xamante ne mooy baxdiya kon nag ngir waajal gan googu it noonu lañu war a def kon nag mbokk yi alxayru aada wa charru lu jaaja waaw mbaax daal looy jikko wóola rek mu ne ci yow entraîné ci ba mu nekk ci yow waaye mbon moom yal nañ ci yàlla musal daal yal nañ ci yàlla musal kon nag mbokk yi déglu Safin FM 98 point 2 ci nan la ñuy waajalee weeru koor wi di ñëw moo taxoon sallallahu alayhi di wax ne raxima anfu rajulin daxala alayhi ramadan summa nsalaxa qabla an yuxfara lahu ah parce nga de ñeel na waa jile nga ñeel na ko de toskare ñeel na ko de kooku mooy kan ramadan ñëw na ba dem weeru koor ñëw na bu dem nga sàggan ci sàggan ci ba mu dem te jéggalee fu ñu say bàkkaar yal ci yàlla musal kon ndëg pertement la kon ndëg weeru bu ñëwee rek bu laa dem war nañ la jéggal moo tax suñu yonente bi saa salaam ne ñett yii la ñu xaaja ramadaan rahma maxfira itqud min an naar rahma yërmande fan yu jëkk yi fukki fan yi fu yeneen fukki yi yéen jéggal bàkkaar yeex yu ni mel buñ la jéggalee nag moom mooy texe nga gore nga ci safara mooy it xut na naar muy fukk yu mujj yi kon nag mbokk yi weer woowu ku ci génn rek war nga nekk koo xamante ne dangay am xel mu dal dangay am yaakaar ci sa bopp waaye loolu pour mu am mbokk mi fokk nga tàggatu bu baax foog nga tàggatu bu baax kan moo la wax ne dese nga fi ay fan dese nga fi weer dese nga fi at kenn waxu la ko kan moo la ko garantil déedéet kon nag yal yàlla may ramadaan bi ñu dëkk dëgmal ñu fekk ko ñu ñëpp ndax tal wér te mën ko woor waaye góorgóorlu ba weer wi occasion la mbokk yi ngir summeeku ci tilim tilim yi dund doom aadama mbokk yi ci loxol borom bi la ne xol doom aadama yi ci borom bi la ne kon nag yàlla na yàlla saxal suñu xol yi yàlla na ko yàlla dëgëral ci lu ko neex moom borom bi subhaanahu wa taala kon mbokk yi waxtu jéggalu ñu jéggal la ñëw na waxtu jéggalu ñu muy ramadaan mbokk yi ki am garabam muy meññeef wetu ci ba meññeef ba ruuf raaf ba jeex muy séentu meññeef perte na kon nag weeru koor mu ngi noonu mbokk yi yéen a ngi seen émission xam sa diine ci 98 point de di nuyu soppee fu ñu mën a nekk nga xam ñu ngi ànd ak ñun jamono bu ne di leen ñaanal tawféex di leen ñaanal sutura di ko ñaanal ñu nga xamante ne ñu ngi fii ci Grand Yoff ñoom Marème Ly yàlla sàmmal ñu leen ñaam ngom fële ci Mariste ñu ngi koy nuyu bu baax Mountaga Gaye Marème Ndiaye fële ci Thiaroye Aminata Sow Pikine waa Grand Médine Amadou Diallo waa Liberté yi ñoom macha allah El Hadj Doudou Seck soxna Binta Mbaye Liberté 5 fële ci Rufisque di nuyu suñu papa gànn fële ci Cambérène macha allah. njaboot gi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu soxna Fat Cissé fii ci Scat Urbam sëñ Yoro Ndiaye ñu koy nuyu bu baax di nuyu njabootam waa Scat Urbam yëpp Aline Badara Cissé ñoom ñëpp macha allah yal na yàlla sàmmal ñu leen imaam Ousmane Faye mu nuyu ñu al aïma wal ulama fële ci Yoff waa caserne Malick sii sapor pompier ñu ngi leen di nuyu jël nuyoo di ko jox malik Ban ziyaaral ñu ko bu baax te Ndiaye ñu ngi koy ziyaar Ndeye Binta Konte unité 10 ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. fàttewuñu it yaa Aïssa Diallo cité Fadia fàttewuñu it Abdou sahar di diis macha allah fàttewuñu ma Abdoulaye Kanji taw ñu soxna Coro Jaxate ñom ñep ay soppe lañ di andax ñun jamana bu ne yalla yalla samal ñu leen maana jóg fale ci Pikine ñom ñep ñu leen di nuyu bu baaxa baaxa baax may mun jaw jaww ñu kay nuyu nuyu ñu wa HLM ñep yalla yalla defal leen tawfiq ko bëgg mbokk yi ci wéru koor wone importance wéru góor góorlu ci weer wi mën nga ko def ci anam yi bi ci jëkk mooy al muxaafaza ala al faraid wa adamu tafriti fiiha wal iksaaru min an nawafil sax ci faratay mooy weer wi ñu nekk na nga góorgóorlu sa faratay bul ci négliger dara su waxtu wi jotee na ko jooxe na ko borom bi bëggee bul ci sàggan ci dara waaye bul yem ci faratay mooy tagatal sa bop ci nafile yi kon wer wi weru vigilance la laxasuwaat ci faratay waye ci nafile it xoolal suñu borom di ak yonente bi di ak ñun ci hadith qudsi bi mu ne وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبشت بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه xadis xudsi yu boobu bu am solo suñu borom di wax ne daal jàmm bi lii mooy gën a jege la ma sa gën a neex mooy farata kon nag looy defal yàlla li ki ci gënal mooy farata kon nañu góorgóorlu ci farata yi bu baax mbokk yi boo ci noppee ci farata yi nag ngay góorgóorlu ci naafile yi moom suñu borom mu ne nit ki sama jaam bi du deñ di naafila di ma jige ci naafila yi du deñ di ma jige si naafila yi ba ma sopp ko lool waaye comme ni may waxee naafila du julli rek naafila mooy ndollante waaw lu mu mën a doon waaw ki yàlla defal wér mu war a julli joxe ay farataam su paree naafilaam mooy kantan gi ko yàlla may na si def naafila na si seeti ay mbokk na si dimbali ñeeri doole yi si dooleem fu société bi doon taxawee dara mu taxaw wane jàppale leen ci dooleem borom alal ji naafila ci alalam ginnaaw farata muy zakaatam mu naafila ci alalam keneen noonu borom xam-xam bi noonu joxe xam-xamam ñoom ñëpp mën a la ngay def daal te yàlla tegu la ko mu tudd naafila ci yow mu ne jaam bi du koy deñ ci nekk ba ma sopp ko man yàlla parce que da nga koy def ngir jige yàlla mu ne dangay dem ba mu jege man yàlla maay doon sa soppee na laan ndëg a ah, anta xabibi waaw ba bu bu ma ko soppee man yàlla nag may mujj nekk sam ahu noppam bu déggee rek day mel ni moom daal day mel ni yàlla moo ne ci moom bëtam bu xoolee du xool lu araam du déglu lu araam loxo bi nangam tànk bi nangam lépp daal cëram yi dana ci góor góorgóorlu ba du ci mooy borom bi subhaanahu wa taala waaye nag saa yu demee ba toll foofu nag wa in saalani la ontiyan na lu mu ma ñaan man yàlla ma defal ko ko parce que kooku sama xabibi la bu mu bu sàkkoo muslu ci man ma musal ko parce que sama soppe la parce que def na lu tax mu mujje nekk sama sopp noonu tamit mbokk yi ngay gisee nga fexe bëre sa bakken bari looy naafila ngir lan ngir am cofeelu borom bi subhaanahu wa taala ndax loola moo lay may ëllëg dëkkuwaay ci aljana yi gën a kawe imaam muslim génn na ci xadis ba ne anna nabiya sala sallam euh, qiila lahu sal fa qultu asaluka murafaxatuka fi ljanna maanaam rabia ibnu kaab al aslami dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom rabia yonente bi ne lan nga gën a bëgg ñaana lan nga gën a bëgg waxal mu ne ko daal li ma gën a bëgg yonente bi mooy àndax yow dëkkax yow biir aljana yonente bi ne ko la wala ndax am na leneen loo bëgg mu ne loolu rek laa bëgg soxlaw ma la neen yonente bi na ko fa inni ala nafsika bi kasrati sujud kon tamit yow it dimbali sa bopp wala dimbali ma bokk wala sàmm la di bari looy julli ay nawaafil naafila waaw bari looy def naafila kon boo naan nit bari looy def naafila fekk na fonk na farataya ba noppi waaw fonk na farataya nga ne ko nag góorgóorlul ci naafila yi ci ngay nekk soppop borom bi subhaanahu wa ginnaaw farata yi nag ginnaaw farata yi toujours parce que mënuloo fi bàyyi farata di dem di di sonna si sunna waaw ah, di sonna si sunna déedéet kon rabia ibnu kaab ba ko yonente bi laajee lan nga bëgg mu ne ko daal dëkkax yow aljana yonente bi naka kon nag góorgóorlul ba del bari ay naafila kon nag weer wi mbokk yi weeru naafila kon nag lu tax mu nekk kasaratu sujud ndax sujud cër la di farata ci naaf si ci julli moo tax mu tuddal ko loolu waaw bokk na ci loolu it ci weer wi ni koy waajale al iksaaru min asiyaami fii chaban weer wi nga bari loo ci woor waaw loo ci mën a woor rekk waaw nga góorgóorlu woor ko ci Buxaari mu ngi génn ci xadis boo xam ne suñu yaay Aïcha moo ko solo mu ne kaana rasulullah salaa sallam yasuum xatta naquula laa yuftir yonent bi da daan oor di oor bañ ne kii day daawul dogati maanaam day continuer rek waaye mu dog bañ ne ah pare na ci dootul woor kon da yonent bi dafa daan woor di dog waaw ah, dafa daan woor di dog te bi moo ñu gën a jige yàlla moo ñu gën a xam yàlla kon it foofu bu nit dëkk ci koor rek waaw du koor gi daal warul ëpp lool lool lool parce que bu ëppee mën na la lor waaw waaye bul ci xaabaabal da ngay woor di dog ngay woor di dog waaw moo tax ñu yorente bi ne bu ngeen ko mënee it weer wu ne rek ñetti fan ngeen woor ko ci muy ayaamul biid waaw bu ko defee daal bañ ci xaabaabal waaye yorente bi weer yi fonkoon na ko lool ci yaay Aysa wax na loolu waaw mu ne wa ma raaytuhu fi shahrin aksara siyaman minhu fi shaaban gisuma yonente bi fu mu daan woor lu ëpp weeri bu dul weeru koor ci weer wii di baraxlu buxaari it wax ne yonente bi saa sallam lam yakun nabiyu yasuumu min shahrin aksara min chaabaan fa innahu kaana yasuumu chaabaanu kullahu chaabaan gépp daka daan oor maanaam nag daaw kot euh, lëkkale moo wax weeru koor maanaam daal daana ci woor lu bare bare bare bari waaw moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ci beneen ruwaaya boo demee ci muslim ci buxaari di nga fekk mu ne kaana yasuumu chaabaana illa xalila waaw kon daawul wóor lépp waaw suñ yaa Aïcha waxal lu ni mel waaw ndax yonent bi ñëw na bés ñu ne ko ah am na ñoo xam ne daal ñoom macha allah dañuy woor de waaw dañuy woor rajab comme weer wala ñu génn rajab daal dañ koy woor yonent bi saa salaam ne ayna hum min chaaban waaw mu ñu defaa chaaban di baraxlu bi waaw ah, pour wan la importance su baraxlu nga waxee ne ko yow ñooñu dañuy màggal rajab dañ koy woo mu ne waaw nu ñu defar Shaabaan kon loolu dalay wanaat ne weer wi nañ ci góorgóorlu bañ ci sàggan pour walla weer wi ni mu amee solo ñu nettali ne amoon na benn giir dañu amoon seen benn jaam ñu jaay ko ñañu ko jaay toog ba koor gi di ñëw ñuy waajal koor gi comme ni ñu koy defee mu ne leen waaw lu xew ñu ne kat weeru koor wi day la waajal ñun buy ñëw daal nii lañuy def moom jaam ba ñu jënd ne leen ah man dafa mel ni toskare ñeel na ma moom jaam bi mooy wax ma daal pertaga ñeel na ma man daal maa ngi rëccu luñ ma doon jaayee ñu ne lu tax mu ne ñama nekkal xàmmeewuñu jànjax joor xàmmewuñu weeru saabaan weeru ramadaan ñoom weer yépp dañ ko daan màggal maanaam daal dañ dañ leen bëgg a wax ne ñooñu si jaamu yàlla rek lañu doon sax kon ndëkk kooku dalay wan ne la moom it nitu yàlla la waaw mu ne leen ñoom xàmmewuñu jànjax joor waaw kon nag yooyu yëpp dalay wan ne la weeru nañ si góorgóorlu bu baax moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa yasuumu abdun yowman fi sabilillah illa baada allahu bi zalika alyowma wajhahu an innaari sab'iina xarifa allahu akbar moom yonent bi mu ne yàlla subhaanahu wa taala képp koo xam ne oor nga benn bés te yàlla rek tax yàlla dana la sorayal safara ñee juróom ñaar fukki nawet mooy juróom-ñaar fukki at daal xoolal nga def ko benn yoon kon nag benn bés boobu waaw léegi yow mi nga xamante ne nag da nga woor weeru koor kon lan mooy xew yow mi woor ñaari fan ñett ñeent juróom ba am weer kon lan mooy xew moo tax suñu borom wax ci alquran ne fa man zuhziqa ani naari wa udxila aljanna faqad faaz yàlla nañ ci yàlla boole képp koo xam ne yàlla soreyal na la safara dox na sa digganteex dara def nga jaamu yàlla ba yàlla soreyal la ko mu ne kooku day texe na fakat phase waaw kon nag mbokk yi déglu Safina FM 98 point 2 weer wi yi weeru waajal la bokk na ci mën nga ko waajale al iksaaru min alsadaqa wa qiraatu al quran bari looy siy saraxe bari loo ci bari loo taxawu doom aadama yi bari it loo ci jàng alquraanul karim ngir waajale ko weeru koor al iksaaru min alsadaqa waaw weer or ci weer wii di baraxlu mbokk yi ak tàggatu la ma entraînement la ci weeru koor ngir nga bañ a dugg ci biir weeru koor am ndax coono jafe-jafe ndax kuy def dara te tàggatuloo dañ koy yëg gis nga même ñiy dem aji baytullahi haram maka dañ lay sax deel tàggatu ngay dox ñu nga daan del dox ngay xëy di dox dox booba yaa ngi tàggatu ngir boo demee ci aj gi bañ a am jafe-jafe noonu tamit la koor gi mel danga nga war a tàggatu bu laa ñëw ngir nga baña am jafe-jafe waaw weer wii nga xamante ne mooy baraxlu weeru tàggatu la ngir tàmm mar xiif coono ci li nga xamante ne mooy weeru koor kon nag moom dafa mel ni avant premier la pour weeru koor ci la yàlla dogale la mu dogal ci weeru koor ñu war ko woor ci la dogale ñu war ci jàng alquran muy anniversaire ngir nga mën a am ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala mbokk yi weer wi nañ ci barayal lu ñuy jàng alxuraan ndax prépare weeru koor ndax yonente bi nee من قرأ حرفا min kitaabillahi falahu bihi xasana nga ubbi sa téere nga ne bismillahi rahmani rahim bismi baabi siin gi miim gi xam nga benn baat la ñetti xarf moo ci ne xarf mooy lettre waaw kon benn bu ci ne boo ko tuddee mu ne la am nga fukk kon bismi trente yiw mu ngi noonu parce que ñetti lettre la bu ci nekk am nga ci fukki yiw mu ne alxuraan bi yëpp noonu la ko yàlla di defal ba mu jeex wala saar wa nga sa jël aayaat ya sa jël ba xarf bu ci ne danañ la ko defal fukki yiw moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la la koy defale ci ay ngëneelam kon nag mu ne man qaraa xarfan min kitaabillahi falahu bihi xasana wal xasanatu bi ashri amthaliha ci la waxee ne laa aqulu alifun xarfun wala kon nag la ñaanal yàlla di la ñaanal sutura bu baax eh, yal yàlla defal leen tawfiix ñoom it mag ñi wax dëgg yàlla loolu lañuy ñuy doyee mag nag yal na yàlla doole seen sutura bu baax li mu naan rek eh, sami'na wa ata'na dégg ak topp yal na ko yàlla defal ci 88 628 10 95 mooy guumu jokkoo gi kon góor góorlu ci anam yile eh, ci weer wi ndax ñu mën a yéege suñuy jëf ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam sallam usaamatu bnu zeydi dafa wax ne qultu ya rasulallahi lam araka tasuumu min alshuhuri ma tasuumu min shaban moom usama def na yenente bi daal man dama am seetlu gis naa ne weeru lu wi ni ngi koy taxawoo daal melul ni yeneen weer yi mu ne ko gis nga weer wi moom yenente bi ne ko usaama weer wi wile nit ñi dañu ci am tuuti sàggante rek tuuti sàggante te weer wi si la yéege jëf yi mu jëm si borom bi subhaanahu wa taala te man yonente bi uhibbu an yurfaa amali wa ana saaim te dama bëgg samay jëf man yonente bi bu ñu koy yéege mu fekk maa ngi woor bëgg bu ñu yéege sama jëf mu am ci yoo xamante ne koor lay àndal loolu moo tax mu bëgg joom aadama yi fonk weer wi di ci woor kon loolu dafa am solo dinga nga dégg kon naka ci weer wii si lañuy ñuy yéege jëf te neex na dégg neex na dégg gis nga weeru koor bu ñëwee ni ñun ñëpp liggéeykat bu ne boo liggéey bu ngoon nga wàcc kii samedi du xëy wala dimanche kii weer ba weer at bu dellu see weeru dina ci am weeru congé ku si nekk weer wii tamit yàlla subhanahu wa niñ ko mën a waxee nga mën ko dégg ci weer wi di ñëw ci weeru koor buñ ko mënee waxee ne day jox malaayika yi congé ci weer woowu lay doon ndax da fay wax ne as-sawm li wa ana ajzi bihi mu melni ni dañ ko laaj kon jifi jami nan lañ koy natale ci wéru mu ne dedet as-sawm li wa ana ajzi bihi yéen noppalaku len man mako mom ta dana ko fayal sama bop kon deug dalay wan ne la donte la malaaka yi ngi fi def seen liggey waye yàlla moy jëlal bopam en charge oru jami ah ya ñu cay def yeb kon nak mu ne dama ngeen xamne kon nak ñom bu ñu liggéey ba tollu fofu wara yéggé yéeg a jëf yi nag parce que weer wi di ñëw yàlla mo koy saytul bopam mu ne bon nak ñom jëf yoy dañ koy yéggé te bëgg na buñ koy yéggé mu am ci yo xamne koor daf ci nekkale man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon nak lolu jarna bàyyi xel bokk na ci it li nga xamantene da nañ koy yéggé jëf yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tu'radul a'mal yawm al isnin wa yawm al xamis bésu altine bésu alhamas tamit bu ne jëf yi danañ ko yéege kon weer wi ci baraxlu bi danañ yéege jëf yi waaye altine bu ne alxames bu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jëf yi danañ ko yéege te xadis boobu abi hurayra nettali na ko te mu ne man yonente bi damay bëgg it bu ñu koy yéege mu fekkeet samay jëf fekk maa ngi woor kon ñun la ciy xiirtal ñun xeetam moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bésu altine bésu alxames ay bis yu bax la ci woor ay bis lañ yu baax ci def lu baax waaw bis yu baax ci def lu baax kon loolu jar na bàyyi xel kon nag nga jàppane ne yéege jëf yi mu jëm ci borom bi daal mën nga ko tënk ci ñett yi dina am ñetti étape bu jëkk bi mooy boo xamante ne bés bu ne bés bu ne yàlla dana yéege jëf yi ndax malaaka yi nga xamante ne yataaqabuuna fiikum malaaikatun bil leyli wa malaaikatun bin nahaar wa yajtamiuuna fi salaati alfajri wa salaati alasri summa yariju allazina baatu fiikum fa yasaluhum ba xadis ba jeex loolu moo lay wan ne la bés bu ne rek jëf yi day dem waaw wan la ne la bés bu ne day dem amna na dila di la wan ne la bésu altine bu ne bésu alxames bu ne jëf tamit day dem ci hadith bi la tuddal sànq waye tamit an la bo xamantene ni ci wéru sha'ban bu ne muy baraxlu bu ne jeffi day dem comme ci ñetta yoyu le mu ne bu si rek man yonent bi sallallahu alayhi wasallam beugena bëgg jamono bu ñuy yéege jëf man yonent bi sallallahu alayhi wasallam sama boss bokk ci ta fekk na koor mu ngi ci mom sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne ne la يالا آر نكو مسل نكو إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يالا جيجل نلا لي ويس لي ما تول اخ لي نيو ييب كون كوكو محسوم لا واي خيتام موتاخ مونا نان امتي امتي كون يوي موني خيرتال تي وير وي يوي موني خيرتال تي بيس بو yooyu mu ñuy xeertal ci altine bu ne alxames bu ne kon nañu góorgóorlu bu baax mbokk yi ci ñetti étape yooyu ba suñuy jëf man di yéegaale incha allah kon nag ci 88 628 10 95 mooy gumu jokkoo gi ku fëgg rek sàmm dana la allah te di fàttali mbokk julli di rek ni ngeen koy xamee at mu ne rek euh, al mujahidul akbar di nga xamante ne tey jii euh, diine si Sénégal la même ci àddina bi amna ci taxaw bu am solo muy Cheikh Omar fouti tal xamantene ne buñ ko tuddé rek xel yépp a dellu ci mom at mu jot nag julit yàlla yi danañ fa daje ànd faax kilifa gi cierna bashir fami bi yépp waye ki nga xamantene mom la yàlla tek fi muy cierna hamidu am taxaw bu am solo bu mu fa am yàlla cëreel ko fa kilifa yi am yaakar ci mom lool mu di ci àndax njaboot at mu jotit dañuy départ fii délégation di dem kon nag xalwaar jigase na incha allah le 9 lay doon muy àllarba ja départ bi nag fii ci talaata bi lay doon ku ci bëgg am lu ko leer rek bu fi ootee loolu yitteel ko danañ ko jox numéro yi allo salaamaaleykum. maaleykum salaam ah, Fadilatul Oustaz Balde. ñu ngi lay ziar ya ngi la koy delloo ziar ya cheikh di la nuyu bu baax a baax a baax ñu ngi lay delloo nuyoo oustaz di la jox sa wàcc waay waaw jërëjëf jërëjëf yeesalaat cofeel nga bëggeel gi ci yow bu baax a baax a baax a baax ñu nit kazalika ñu nit di la ñaanal jàpp ñu nit ñu ngi la koy neen la ñaanal suñu ñaan yàlla bàyyi ko suñu kanam mu yàgg fi lool amin yaa rabbi waay amin yaa rabbi yàlla na yàlla gën ko kàttanal allahuma amin amin ko jéego yi nga xam ne moo ngi koy liggéeyal lislaam mu gën koy mën a taxawee wallaay amin yaa rabbi waay yàlla gën a yaatal xam-xamam allahuma amin gën a yokk mën-mënam amin yaa rabbi yow itam ñoo ngi lay ñaanal loolu jërëjëf yow ñun kazalika waaw mel ni Maodo mi ma doon waxtaane tey wallaay dëgg la moo ñëwaat te yow da nga ko jël yaatal ko nag bu baax est-ce que est-ce que tey bu doon ab téere dama naa ñëw yaa ko chara bu mu leer macha allah sa bas mat na te leer na waaw li ci wax moom macha allah macha allah macha allah uskay uskay uskay ñoo koy teewlu mais wax ci macha allah fa faaxa na jërëjëf jërëjëf jërëjëf te itam xam-xam bi matale na bu baax a baax a baax jërëjëf oustaz jërëjëf xanaa di la ñaanal yàlla yàlla bàyyi la suñu kanam ngeen koy yàgg allahuma amin ya rabbi allahuma yàlla yokk sa wér amin ya rabbi amin waay waaw man damay faral di la jëwee di wax ne yow kenn nga ci jàmbaari l'islam yi ñu ne ay taalibe rek lañ waaw wallahi yàlla xam na ko parce que da ngay koo xam ne saa su ne ñoo ngi gis sa asthme bi di gën a yokk yàlla baax na jërëjëf waaw léeg-léeg sama classe gi nga gis ñu xaw a mel ne ñu tayal ak yooyu mais yow ah. buñ la buñ la gisee rek jërëjëf jërëjëf day mel ni tey nga gën a am pas-pas ci affaire yi te loolu yombul jërëjëf jërëjëf waaw ñu ngi ñaan yàlla fal la cat amiin yaa rabbi amiin yàlla guddal saw fan lii nga mën nii ren jee eh, bu déwénee yàlla nga mën lu ko amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi nga yàgg di teewee ramadan di ñu ko defal nañ ko daan defale ci jumaaje inshallah amiin yaa rabbi tafsir ju neex bi ñoo ngi sax pour l'occasion di ko wax waa sax fi ne képp ku ñu dégg inshallah jërëjëf bàyyil xel ci tafsir boobu foofu ci jumaa ji imaam Mbaye moo koy taxawee. jërëjëf jërëjëf jërëjëf tafsir bu mucc ayib macha allah xam-xame lool. jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw yal na yàlla yokk ko imaam yow da ngay koo xam ne macha allah. jërëjëf jërëjëf man su may wax ci yow du ma doyal. waaye yow borom xam-xam la waaw su may wax ci yow du ma doyal parce que man dama dama ñeme wax ci yow. lu tax ma ñeme wax ci yow dama la xam. jërëjëf jërëjëf jërëjëf dañu yàgg ma xam la xam sa mbaax xam sa jub xam sa xam-xam moo tax su may wax ci yow. jërëjëf jërëjëf damay am fitu wax ci yow. jërëjëf jërëjëf bu doon keneen la koo xam ne des naa ko xam ne mën naa gaal sañ lu wax li rek mais yow dama la xam bu baax moo tax li may seede ci ma di ko seede jërëjëf Oustaz jërëjëf yàlla rek tax kon ni mu ko waxee tey ci jumaa ji rek jërëjëf jërëjëf waaw bu ko defee ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla gën amin ya rabbi yàlla gën a xam-xam yàlla gën a soppi amin waay amin waay waaw di wax nag euh, loolee ma la junjoon ci jamono yi bëggoon naa daal émission bi kii mën naa nekk nañ ko def te soppee nañ ci jàpp jërëjëf bu sooba yàlla waaw mooy jongante bi ci wàllu laaj ak yooyu waaw jërëjëf jërëjëf bu ko defee ñu mën a xam ndax léegi ñuy topp xam sa diine ñoom baa ñu ngi jàpp masala yi ñu ngi jàpp masala yi waaw loolu da ciy baax da daf ciy baax kay voilà bu ko defee loolu moom maa ngi koy sàkku daal xam naa xëy na almudira mu ngi may dégg mu ngi lay dégg waaw bu ko defee mu bàyyi ci xel am na ci solo parce que bokk na ci liy gën a yëkkati rajo bi jërëjëf jërëjëf waaw incha allah ñu koy fàttali mbokk yëpp di am ay neexal di ko jox ñeen nañu ci ci weeru koor yi jërëjëf jërëjëf baax lool jërëjëf jërëjëf ci koor gi moom même bu dee sax incha allah dañuy teg benn dix mille ñàq ku gagné rek moom lañ koy jox yëpp baax na ci wala kaamil lu mu ci mën a doon daal baax na ci waa sàmbe ni ñu jox leen tàndar max mburu rek voilà ma ngoog dafay baax na dafay baax na incha allah jërëjëf oustaz jërëjëf yéene bi sell na jërëjëf yal na yàlla mottali jërëjëf amiin amiin jërëjëf oustaz wa barakaatuhu oustaz Moussa Balde macha allah kon nag euh, yéene la wax macha allah pour rek wa jox nit ñi lu ñu doge waaye tamit jàpp ci émission bi loolu moom kër gi émission bi yi fiy daw yëpp ñu ngi si oo ñëpp incha allah allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. ah Paa Warga wan. xam na xam naa ne xam naa ne Balde man man lay gaaruwaale. ah yow lay gaaruwaa dégg nga ko. waaw man lay gaaruwaale. <laughs> waaw Oustaz Balde. maa ngi koy nuyu. mu ngi lay fay jërëjëf. di la sant di la gërëm. wallaay mu ngi lay fay jërëjëf. yal nañu yàlla defal jàmm. jërëjëf wan. am na li nga wax léegi. Thierno uh-huh. Amin Yaraban. Uh-huh. man de wóolu naa ko. dëgg la dëgg la. wóolu naa ko la. ci fan yu alxuraan. wallaay dëgg la. ci fan yu jaamu yàlla. wallaay macha allah ci fan ko de. wallaay dëgg la wallaay yal na ko yàlla oyofal seen bi. amiin yaa rabbi amiin. siyaare bi nag. Mhm. yaa rabbi. man de su ma amoon. ma dem allah. waaye xam naa ne. léegi après man man nga oote ci numéro bi rek comme ça incha allah 77. 77. 609 21 80 boo amee ku la ko jëlal. waaw incha allah boo ci ootee rek incha yàlla mën na yëwénal yëpp. incha allah xam naa ne xam naa nit koo xam ni. waaw yàlla may na ko fépp. dafa oyof. jégal la. xam nga ku toll na ci moom. waaw. amul amul nekk de. déedéet déedéet. porte parole amu ko de. déedéet déedéet gis ko. wallaay dëgg la si lu wér. yàlla la moom. si lu wér si lu wér si amin wan. ni Eh, doom bu baax la. jërëjëf wallaay wallaay doom bu yaru la. wallaay doom bu xam mat la. wallaay dëgg la. dañu ko ñaanal yàlla nag. allahumma amiin yal nañu yàlla wàcc ci barke bi. amiin yaa rabbi. di jaana bi Moustapha. amiin yaa rabbi. yow itam na. lu bal de yow loolu la. waaw jërëjëf yéen a baax rek am nga xam-xam woo ne wu ku sa Eh, du jàpp sax. dëgg la jërëjëf. li nga li nga nekk nii. comme uh-huh. dëgg yàlla sant yàlla rek. jërëjëf jërëjëf fal set. wan. man mu nuyu nga bàyyi ngaa la. mu ngi lay dégg moom mu ngi lay nuyu léegi sax wallaay. ak ak euh, sant El Hadj Doudou Seck yàlla na ko yàlla defal jàmm. allahumma amiin yaa rabbi. ak papa Amadou Sow papa Amadou Sow macha allah. gëj naa ko dégg de xaw ma si lu mu nekk de. mu ngi fi mu ngi fi yaramu mag rek. mu ngi am jàmm. <laughs> waaw mu ngi leen di nuyu bu baax rek. yàlla na yàlla defal jàmm. allahumma amiin wan. rajo bi rajo sant yàlla la. sant wallaahi rajo sant yàlla la. rajo bi sant yàlla la jaamu yàlla la. wallaahi dëgg la wan. yàlla nañu yàlla defal ku defal rajo bi amiin yaa rabbi wan. Seydou Kumar nag. Seydou yëpp la de. wallaahi dëgg la wallaahi dëgg la saytu wallaay dëgg la am na barage yu bëri ngay umar la ñu barage wallaay dëgg la si lu wér salaatul fatiha ëpp ku nga def ak nii di wax salaatul fatiha li maa wuli ko si say gumar la jëlee allahu akbar allah yal nañu yàlla defal amin ya rabbi wan yal nañu yàlla defal jàmm amin wan amin maa ngi leen takku ñaan jërëjëf wan maa ngi leen di ñaanal jërëjëf wan yal nañu yàlla defal rajo bi ba allahuma amin wan rasulullah jërëjëf wan rajo bi wuy na turam de wallaay wuy na turam macha allah saadati wallaay wallaay wuy na turam macha allah jërëjëf kooku mooy Pa ga Wan macha allah kenn ci mag ñi ñoom it gis nga rek macha allah suñu duggee rek xol sedd yenn yàlla defal leen tawféex ci 88 628 10 mooy gu mu jokkoo gi ku fëgg rek sàmmat na la ubbil allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. wa rahma waaw El Hadj Doudou Seck. ñu ngi lay ziar Seck. bay bay bay alhamdulilah alhamdulilah. jërëjëf jërëjëf. waaye yan yàlla kontaan Seck. Ah, li nga wax ci yoru koor day na maanaam. wala waay jërëjëf Seck. la kontaan nañ trop. jàll na yàlla kontaan rajo bi daal yaa rabbi Seck. te di ziar borom rajo bi nag. ñu lay dégg yaa rabbi amiin ma amiin Louma waaw macha allah jaare góor góor gi wan génn na léegi war nga wan macha allah yal na ko yàlla defal jàmm amiin yaa rabbi amiin dal panam wéral amiin yaa rabbi jaare Amadou Sow pa Amadou Sow itam benn nañ ko dégg jërëjëf mu yal na ko yàlla defal jàmm rek yaa rabbi amiin yaram sara bari bari amiin yaa rabbi di jaare eh, kii eh, xale xale rajo bi waaw ñoom ñëpp eh, macha allah El Hadj Malick El Hadj Malick soppe yi mm, Dongale Gueye ndongo liggéey. macha allah barikalla. jërëjëf jërëjëf Fadia macha allah. ak oustaz euh, mhm. Dieng. Dieng waaw yàlla leen taxaw macha allah. yàlla sàmm leen. allahumma amiin jaare imaam euh, Moussa Gueye. Moussa macha allah. jàmm ak salaam. amiin yaa rabbi allahumma amiin jërëjëf Mbaye. jërëjëf yow kenn la yow taxaw. waaw yéen yéen a baax rek jërëjëf Seck. parce que liggéey comme ni ko. amiin amiin yaa rabbi amiin ñu waa Liberté yëpp incha allah jërëjëf waaw li ñu mooy xaw a dog El Hadj Doudou Seck macha allah moom it di ci mag ñi yàlla yàlla sàmmal mag ñooñu le ci 88 628 10 95. am na ko ne ci ligne bi asalaamaaleykum ah. waaleykum salaam. Imaam man xarit Samba. waa xarit maa ngi lay ziar bu baax. Dia delloo ziar yaa ngi si jàmm sant yàlla bu baax naka njaboot gi waxtaan am na solo ñëpp a ngi si ñëpp ah, jërëjëf jërëjëf weeru koor moom barke ah, barke la <laughs> kon di fàttali nit ñi moom di leen ñaax da siy baax macha allah wallaay yal na yàlla fay la yàlla sa taxawaay bi macha allah dëgg na jërëjëf xari kooku mooy xari Samba macha allah di nuyu njaboot gi yëpp yan yàlla defal leen tawfiq kon ni mu waxee fàttale rek di fàttali njaboot gi it ñi góorgóorlu ñi ci amee ay bor ñu fay ko du ay bor yoo xam ne yaa sa boroom waaye loo amee la yow si sa wàllu bopp waaye yàlla yërmandeem yaatu na ba moo taxoon mu may la bi nga amee ngànt ne la kat noppal naa la ba sa ngànt teggeeku la tawat la wala lu la gaar la lu mu mën a doon or ka di àndax jafe-jafe mu ne la teggil naa la ko bu koor gi jeexee na nga ci góorlu kon nag mbokk yi ah ku ci taxawul woon ba weeru koor wi di ñëw kon nag na nga góorlu nga taxaw ci lool kon nag rawatina xale yu jigéen yu ndaw yi dañu góor góorlu bu baax bu ngeen amee gàllankoor ci weer yi ba mu jeex ah buy ñëwaat na ngeen góor góorlu ngeen fay seen ñetti fan seen ñeenti fan seen juróom yéen a xam ngeen góor góorlu bu baax xam na yàlla bëgg na leen te naral na leen a defal lu baax naral nar na leen a defal yiw kon nag ngeen góor it sant yàlla ci li mu leen may ngeen man fekkewaat pour man fekke dewen dewen yu bari te di ñaanalit ñi nga xamante ne léeg-léeg seen yaram yi dafay xiiban lool yal leen yàlla may ndëgër laay ba ñu mën ko woor ndax weeru koor wax dëgg yàlla lu la yàlla teggilit ne la bul woor daanaka nga oor da ngay yëg ne yaa ngi féex allo salaamaaleykum maaleykum salaam yaay ma. waa kay ñu ngi ziar bu baax ah soxna Maymuna HLM. waaw ñu ngi ziar soxna Maymuna ñu ngi lay delloo ziar. ñu ngi kontaan ci émission bi yal na yàlla kontaan. maa ngi jël sama kàddu teg ko ci ñooñu génn ñëpp wax yu rafet yi. macha allah yéen yéen a baax rek. <laughs> Eh, eh, macha allah ah soxna Maymuna macha allah liñ bi warul woon a coupé xam naa dina ñëwaat waaye eh, kàddoom moom même bu gàttee matale na waaye kon nag ñeen ñoo baax rek yéen yéen a baax macha allah parce que mbaax weesuwul. Eh, émission am nga di ko déglu ngir di fàttale ko sa boroom waaye yemu ci ngay woote it ngir wan ñay waxtaan ña taxawee mbir mën na leen maa ngi ànd ak yéen loolu mbaax mënu ko weesu ndax amaana ñoo xam ne mënoon nañu woote waaye ñu ngi ci leneen am na ñoo xam ne mënoon nañ déglu waaye ñu ngi ci leneen kon mbaaxam gi ci yéen la ne ñun kay ñooy jiim di leen jiim a dab waaye duñ leen mën a dab mukk waaw waaye daal ñu ngi leen di seedeel ne lu ngeen ñu soppa rek wax dëgg yàlla sopp nañ leen ko lu ngeen ñu yëgit yëg nañ leen ko yàlla mi defalaate tawfiq yàlla mu ko yàlla defal ñun ñëpp fu ngeen mën a nekk rek xam leen ne ñu ngi àndax yéen muy guddi muy bëccëg ñu ngi leen di xelaat te di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala sutura teraanga àddina allaaxira yàlla na leen ko yàlla defal fu ngeen mën a nekk wax dëgg yàlla parce que da ngay sedd si xol ngay wax doomu aadama yi di la bàyyi xel alo salaamaaleykum maaleykum salaam man maa dellu. soxna may mun a waaw jërëjëf jërëjëf. ñu ngi ziare la koy delloo jaww. ngeen ñaanal yàlla na ngeen am kon sponsor. incha allah incha allah <laughs> incha allah. comme ça ngeen mën a def yooyu. wallaay dëgg la wallaay dëgg la wallaay dëgg la. jaw jor jaw amin allahumma amin ya waay jaw amin jaw ñëpp ak la koy delloo jaw jërëjëf niil ñu yëpp incha allah jërëjëf may ah, soxna Maymuna macha allah kon nag eh, noonu ñu waxee loolu Oustaz Baldé doon wax moom la soxna Maymuna eh, ngir rek eh, doom aadama yi ku mën jàpp si émission yi am si kër gi rek nga jàpp ci waaw ndaxte. même budul wéru koor bi dañu koy soxla ndax rajo bo xamantene ma sha allah du def commercial comme yenen rajo yi rajo la bo xamné askan wi lañ fi newal ko nit ñun ku ci ne rek war nga ci bay sa war motax ñi fi def ay waxtaan yëpp non lañ fi togué waaw non lañ fi togué di bay seen war lolu commençant par borom kër gi cierno Hamidou kon ñibit war nañ ci uyu allo salam alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi lay ziar. maa lay ziar Kolle ça va. ñu lay ziar lu bëri bëri. lu ñu nit kazaalika. di kontaan bu baax waxtaan bi neex na macha allah. macha jërëjëf jërëjëf. jaajëf naka waa yi. sant yàlla bu naka paa bi mbaa non non instant bii maa ngi doon ici ah, alhamdulilah. alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax a baax. waaw kay ñooy ziar sa sànq am na allah jërëjëf jërëjëf. waaw kay. kon la jërëjëf yal ma waa kër gi yëpp incha allah. incha allah. jërëjëf kon la mhm. allah kooku mooy collègue ja macha allah moom it di feelu xar yi di feelu góor gi yal na yàlla sàmmal ñu leen suñu njaboot lañ. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax yal na yàlla sàmmal ñu leen 88 628 10 95 kon nag euh, képp koo xamante ne rek gis nga yëg nga ne fii de bu ma fa tàllalee danañ jàpp ci kër gi jàpp ci émission yi parce que émission diine yi lool rek la euh, pas pour jàpp pour am am koom wala dara mais pour dundal rajo bi lay doon waaw dundal rajo bi lay doon parce ñi fi oote ñëpp. séentuwuñu dara ci seen oote wala ci nangam waaye gis mbaax di ko xeeñtu topp yiw rek la ñi fiy waxtaan it noonu rek la mel allo salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. wa barakaatuhu Sarr. waaw ñu ngi lay ñu ngi lay ziar bu baax. di di dégg émission bi rajo bi. jërëjëf jërëjëf. di gërëm ak sant njiitu rajo bi. ñëpp a ngi lay fay Sarr. ñoom ngi lay ziar. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf Balu jërëjëf Sarr. ñaan yàlla ndam de nañ day topp allahumma amin ya rabbi lépp ñu waa bureau bi yëpp maa ngi leen di ziar incha allah Gora ah, euh, Baye Ngalla Dia maa ngi koy fay bu baax a baax a baax nee na te ñu yóbbu ko nuyu Baye Ngalla Baye Ngalla ngi koy dégg njabootam yi ah, doon koy dégg jërëjëf jërëjëf waaw ah, bu ko dégg da nga suñu jërëjëf alhamdulilah kon nag euh, daal ñëpp ñu ngi wax ak jaar. waaw jërëjëf jërëjëf. waaw gis ñëpp dëgg na alhamdulilah yàlla na yàlla waaw jërëjëf yàlla na yàlla dolli sutura bu baax. Euh, kooku mooy Abdoulaye Sarr suñu mag ñu ngi koy nuyu waa bureau ba ñoo ngi koy nuyu macha allah. Eh, kooku muy wax di goro suñu xarit suñu soppe suñu wéyjur El Hadj Baye Ngalla ñoom it ñoo bokk service bu ñu ne ñoom waxtu wi ñu ngi bureau ba waaye ñu ngi taal seen rajo di déglu Safina di déglu xam sa diine yal yàlla fayal ñu leen Abdoulaye di nuyu suñu Yaya Fall ñu ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu njaboot gi yëpp kon nag mbokk yi eh, defe naa ne waxtu waa ngi sori eh, yal na yàlla defal ñëpp tawfiix di ñaan rek képp koo xamante ne gis nga ne fii daal bu fa jaaree Euh, am dina mën a am ñu jàpp ci émission yi euh, encourager leen gunge leen loolu dana ci baax rawatina ci weeru koor wi ñu jëm ndax weeru barke la weeru yiw la weeru def ay teraanga la weeru jox nit ñu dog ndax yonent bi nee na ku jox nit mu dog dafa mel ni ci weeru koor wi umma Seydina Muhammad yépp nga ko defal kon yiw woowu mbokk yi eh, nañ ko partager rek waaw ndax lu mu gën a yaatu rek gën a baax su ko defee yal na yàlla defal leen sutura bu baax incha allahu rabbi su ko defee waxtu julli góor gi xam naa ne mu ngi déglu di ko ñaanal yàlla moom it eh, yàlla defal ko sutura nee na saa yoon ko déggulee rek moom El Hadji Amadou Sow waaye jàmm rek la xam naa ne su ngeen ko déggulee rek dafa nekk ci ay yitte waaye xelam yëpp dañul ci yéen mu ngi leen di bàyyi xel di àndax yéen fu mu mën a toll yal na yàlla dolli sutura bu baax a baax a baax kon nag waxtu julli yi mbokk yi semaine bi fajar gi 5 heures 33 salaatu 5 heures 33 salaatu kon nag di tàmmal cër yi teel a jóg comme niñ ko doon waxee ndax weeru koor wi egsi na du weeru koor rek waaye weer yëpp la waaye koor nag moom weeru promotion la 5 heures 48 salaatu jot na. Tisbaar 2 heures et quart takkusaan 17 heures yi ëpp 19 heures 34 ñu julli timis euh, loo ci teg 20 heures 34 même bu ko rombee géewe jot na kon nag fajar gi 5 heures 33 danañu salaatu 5 heures ñu taxawal julli kon nag loolu mooy waxtu julli semaine bi mbokk yi di leen ñaanal tawfiix fu ngeen mën a nekk di leen ñaanal sutura di leen ñaanal yàlla mi nga xamante ne jeexlewul dara baroom sutura la baroom teraanga la te yàlla li mu yor yëpp jaamam yi rek la ko jencal yal leen ko yàlla defal fu ngeen mën a jublu waaye tawat yi yal na yàlla saafara leen ñi ci kër yi ci hôpitaux yi fu ñu mën a nekk am na ko ne ci ligne bi salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum dafa mel ni rëcc na xëy na bu amee sens bu ñu laa tëj rek mu mu mu dugg rek euh, saafuwante wala def contribution ci 88 628 10 95 bële paase am na mbokk yoo xoon ñoom it jëm nañ jiim waaye baaxul xam nga wàllu liñ bi kon da maa ngi leen di jaajëfal bu baax ku si duggulit sa yéene egsi na léeg-léeg liñ bi mooy mel noonu kon nag ci 88 628 10 95 kon nag mbokk yi di ñaanal ñëpp rek boroom soxla yi yal na yàlla taxawu leen euh, kenn bañ a découragé si àddina góorgóorlu waaye ku si ne it na nga jël say matuwaay góorgóorlu bu baax bañ a bàyyee ko rek ba lu ñëw rek maasalam yóbbuwaale la kon nag yal yàlla may ndëgër laay yal na yàlla doolu sutura di leen dox daje mbokk yi ba aljuma bi di ñëw incha allahu rabbi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.